jërëjëf mbokk internet yi seetaan seen sit internet Ngoy TV ñu siyaar leen bëggawaat leen bu baax a baax a baax tey nag ñu fas yéene waxtaan ak émission appel yi waxtaane xam te ñu fas yéene waxtaan ak kan Serigne Abdou Wahab Diop nekk ba diwaanu Touba Mbacké moom lañu ñu fas yéene waxtaanal tey ci xam-xam mais balaa ñoo di waxtaan ak moom ci xam-xam dañuy def benn euh, kii waxtaan bu ndaw rek ci li nga xam ne nii xew na ci réew mi fan yii nii dégg ngeen coow li kenn ku nekk mu ngi gën di wax kenn ku nekk ñu ngi gën di wax dem nañu ba bëgg ko politiser te am na loo xamante nii kenn du ko politiser senegal euh, may wax ak président Bassirou Diomaye Diakhar fay suñu président euh, Sénégalais yi dañ laa bëgg askan wi dañ laa bëgg bu la kenn wutal ay noon dinaa ñëw ci premier ministre Ousmane Sonko ndax lépp su amee moom la président Diomaye askan yi dañ la bëgg sénégalais yi dañ la bëgg rawatina nag taalu bi sëriñ Touba yi ñuy ay murit ñëpp la bëgg li nga am Touba amoo ko fenn ci àdduna bi ci senegal ci àdduna bi sax laay wax ndax du Sénégal rek ñoo la votel diaspora bi yëpp mën naa wax ne tey yow li nga am Touba amul benn président bu ko mos a am Touba ba Sénégal Senegal ak tay kon bul nangu ken di dug sa diggante ak wa Touba man duma tuddu ki wax wax ji ndax man defuma ko nawle ndax man kep ku ma respecté wul wul khadim duma la nawlo to duma tudd sa tour gaa nak ken ku nek mu ngi wax ñu naan ay politique ap ñun ñu ñun ken kessé lañu yaakar fa yalla muy Serigne Touba Ken kese la ñu gëm muy khadim Xadim bëgguñu ku koy tutal wala ngay wax ci mom lu toll ni bon bonu puso wuñu ko ya xam ko mon di doon soxla wuñu ko ak ku mon di doon wuñu kep ken kuy xass Serigne Touba to barke Seexul khadim gis nañu mu gën naan yor naa yorna yor yorna la yor bu fekente ni pistolet bobu def ci nar ray talu be Serigne Touba man pare na na ma ci reuy to mu baye Serigne Touba. waaw su fekkente ne rek ah boobu mu yor def cee nar a rey taalu ba Serigne Touba ngir bàyyi sëriñ tuubaa man pare naa pour mu rey ma pour bàyyi sëriñ Touba na bàyyi sëriñ tuubaa na bàyyi yoon wi nekkul ci yoon wi gémmul yoon wi bu mu sikki sakkal yoon bi bu mu saltel yoon wi mënu ko saltel ndax daf koo màgg daf koo jiitu. may am ay murit ay ay sempalu ay ay ay cheikh aduñu sax ay cheikh nek ay sëriñ ñaana ñaana ñaan ba mënatuñoo ñaan kenn dematul ci ñom ñu naan dañ koy jappal tank to pourtant dem ñoo fi nekkon diko xass gis na ci ben way bu xess xawma day xessal xawma lu ko japp gen di kasal seri di kaas naan si bar ke la andal quoi du ma sax turam ndax rus naa ko quoi mais nañu bayyi ñun seriñ Touba lañ yaakaar tey moom lañu yaakaar ëllëg duñ ko foyee nag duñ ko kafe président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko ginnaaw yàlla Bassirou Diomaye fay bu toogee ci sees bi mu toog ni yow yaa tax yow la Macky sal doon teg lu métti sénégalais yi doon ko xeex ba tere laa nekk kandidaa nga wut candidat ñu ne la xoolal ku la neex nga teg ko koo teg ñu voteel la. nga joxoon ñu jomaay ñu votel jomaay te ginnaaw yàlla yow yaa tax kon am na loo xam ne bu leen ko nangu am na loo xam ne bu leen ko nangu Serigne Touba du moroom moroomantewul Serigne Touba du moroom te moroomantewul bu ay golo yu jóge fale rek ñëw di xas di wax ay formation ay lu kenn xamul duñ ko nangu waaw duñ ko nangu duñ ko nangu tey te duñ ko nangu suba kon ñu andak yeen yéen xaarandi tuuti Serigne Abdou Wahab mu dugg ci ñu bokk ak yeen waxtaan inshallah allahu rabbi li dafa nekkon lo xamne dama ko bëggon jàllale tuuti rek pour gaay yem xam ka ni Serigne Touba du morom ku yalla bindi ginaaw yonente bi sallallahu alaihi wasallam waaw wala kon nañu bayyi wax ji nañu bayyi li ñuy def Ken ku nekk na gem, la nga yakar, yaakar la nga yaakar bu elek fa yalla loolu la amoon luma ci wax dotuma ci waxat ndax wax ji bari na to pourtant mënoon na ñak waaw pourtant mënoon na ñak to wax ji bari na to li tax mu mënoon ñak moy ki war ki ki euh, wax mo wara tej la mi ñam wa alaykum wa rahmatullah. waaw seigne Moussa na ngeen def. yaram ñu lay jaar baax seigne Abdou Wahab. yalla yalla na yàlla baax. alhamdullah ñang ci jam baax alhamdullilah xawna fi tang tuuti sax aha deug la ndaysan deug bay rek nga noyu oh, mbokk internet yi ni doga dug ci laaj bi may fa tay bok na ñu waxtani xam xam bok na itam ñu waxtani actualité li xew ci rew mi ci mbiru ju nga xamne man neena sax boguma tul turam matuko fi ko ku len nawlo wul rek kep ku nawlowul ci xul khadim rek man japp na kan ni man duma la tuddu ndeysaan ci mm, wér mm. ak mbokk internet yi ñu doog a ñëw ci laaj yi. Mm. wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen nuyu baax te gën ngaa rafet nuyu ak siyaar. Mm-hmm. di nuyu ci nuyu jullit ak mbokk jullitam. Mm-hmm. nuyu ak mm-hmm. gën a rafet. te wax ni fo mbooloo foo foo jullit nekk rek. ñoo ngi leen nuyu baax te di siyaara. di wax ne sëñ Massa bisimilah. jërëjëf Yaram euh, kon euh, actualité ci réew mi li fi xew fan yi yëpp kenn ku nekk gis na ko euh, am waaju genn tuutal mbindu mag ñi naan dañ ko waroon joyanti am na ay req-req yu ci nekk booy jël ay image yu ñaaw sax naan ku demoon ci biir jumaa Touba wala ci jumaa Touba di nga ko fa fekk ñu bari di ko naqarlu adduna gi yëpp di ko naqarlu Mm-hmm. mu genn melni day talu di ñaawal taalibe Serigne Touba yi. Mm-hmm. boy menacer nan yor na fetel. Mm-hmm. man nak nee naa. fetelam mu yor. bu fekente ne def ci na roy rey Serigne Touba def ko ci na to bay Serigne Touba man parena, pour mu tiire mako to bay yoon wi. so lolou yep job ba ajuma bi passé en tant que Masalikul jinan ñom ñep kilifa yi ay mbake mbake ñep jog di mars muy lu ñaawa ñaawa ñaaw ci rew mi bala ñoo dug ci waxtaan wi siñ bi ñu bayila rek nga joxe ci say xalaat waaw laaj nga laaj ba am solo bo xamni man mi mang koy gis diko deg dégg ñu met lool te ñun amuñu lulu señ tubaa wallahi dëgg amuñu amuñu lulu njabaru señ tubaa gi waaw ayawte na ñun lima ma lay wax rek mhm. suñu maam mhm. lepp lu mu am mhm. señ tubaa ko ko defal deug la kon nag ñun. Mhm. képp koo képp koo xam ne da ngaa tural suñu tubaab rek. Mhm. ah da ñu laal de. dëgg la waaye Cheikh Omar Diagne bëgguma mhm. sax tudd tur yi. waaye loolu mu def. def na jëf ju ñaaw. bu ñaaw a ñaaw bu sal. def na jëf ju ñaaw joo xam ne. li ma xam xam li ma li ma xam nag mooy. suñ tubaab mu def. ni ni mu mel. a ko ko defal. wallaay dëgg la. mbindeef dox ci kaw mëntu mënu ko mënu cee yàq. fifteen mënu koo dindi mënu koo yàq mënu yàq dara. mukk ci àdduna. moom waaw moom. waaw dafa na na ko wóor ni. Mm-hmm. boppam dong la yàqal. kese. gis nga suñu tubaab ay mbiram. Mm-hmm. képp koo xam da ngay da nga koy yëkkati da nga yëkkati waaye képp koy suufeel. wallaay da nga suufe ba faaw moom wallaay di nga suufe ba faaw. te li yëpp dafa xaw nag booy suñu mosaa. Mm-hmm. lii mu def nii bu ko tuubul. wallaahi ay mbiram dara du si baax maa la xamal loolu. tuubaa du ay mbiram dara du si baax. dara du si baax. na leer nañ. Sëñ Tuubaa du ko ñuy tooñ. waaw du ko ñuy tooñ. du ko ñuy sosal mantewul te waaw te ni mu def yàllaa ko defal loolu. li mel yàlla la neex mu soog mu soog mu soog mu defal ko ko. waaw waaw te noonu yi ma yi nga xam ni Cheikh Omar Diagne dox na ko. Mhm. wax ko. Mhm. na ko wóor ni. Mhm. bis bu ko tuugul. ay mbiram dara du si baax te te te la jaarale yàq ba faaw man maa ko wax. wallaay du caaxaan waaw isim waaw jërëjëf yaram ndax loolu mënu doon ñàkk pour ñu ubbee ko ndax ñu laa jël itam di waxtaan ak yow to nga nekk Touba xew-xew bi am to jaaruñu ci mais en tout cas daal moom euh, ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi gën a ñaax taalibe Serigne Touba yi daal xam nga dafa doon loo xamante sax jarul ñaax ndax ñun ñun man dafa gëm ka ne man su ma gis kuy xas Serigne Touba day sama mbogeel ci Serigne Touba Oh, oh, oh, ku ñu nampatal lu dol ni bon bonu pousso ci yoonu sirul khadim mono mono kilifa ki hmm. sirul khadim dededet tollal li nak dafa bëgg op yabaate la dededet lolay ko may talube yi mon nañ ko faj amu sik saka waye ñun mom da yalla da dogal da dogal taluba yi hmm. yep day dox ci ndigal bay hmm. gis nga <laughs> ah dox ndigal gis na loolu mu wax waaw señ tuba wallahi man nako fajal bopam de nako fajal bopam amu luma sik sak motax man la bëgg dogul moo man la bu ko tuubul. waaw wallahi ay mbiram dara du si baax maa la xamal lolou de. Mhm. man la xamal loolu. jërëjëf ya duguma sax. Mhm. di euh, di gëna a istam mom moom foofu laa yem moom rek. Mhm. nan dem ci lima yalla may. waaw en tout cas dal ñu ci ñaan euh, yoon def ci liggéeyam président Diomaye son premier ministre. Oh, waaw kay bu len ken bu len nangu ku dug sen digante ak yoonu Mouride. li ngeen am Ablaye Wade moo gënoon juboo ak xalifa général de Mouride Serigne Saliou Mbacké ah. te amu ko fa ah. Ah. bu leen ko kenn yàqal jërëjëf am na loo xam ne sax sëñ Moussa mhm. maa maa ngi jégalu mhm. euh, dafa dama ko fàtte moom yàlla dafa dogal mu nekk ci nguur gu bees mhm. am euh, euh, benn ñaar la ñaar ñaari mbay ñoom adduna bépp yi am yaakaar ci nguur gi mu nekk ba tax na ñëpp ñu yaakaar yaakaar goo xamee ni. Mhm. am fu ñu xoolee président. Mhm. moom si jëm boppam mu bokk ci nguur gu bees gi. Mhm. léegi. moom war naa lu bëree bëree bëri waaye na na wóor ni maanaam maam état bi nguur gi. nan xam ni ñàkk benn doomu aadama. moo gën ñàkk million million doomu aadama. wallaahi neen ñeel ñàkk waa Touba rek. waaw ñàkk waa Touba waaw. jeex na nag <laughs> waaw waaw bisimilah bisimilah waaw bisimilah. bés bu amatee moom. di bépp kuy murit di gëm Serigne Touba. waaw dina ndax am nañ ci ñoom yaakaar. bisimilah bi kon rek ci li nga xam ne moo waral émission bi loolu dafa nekkoon benn praster bu ndaw rek boo xam ne. xam nga ñu waxtaanee mais sëriñ bi dañuy ñëw nag ci wàllum xam-xam waxtaan ak itam xam-xam ndax képp ku nekk xam na ni euh, sëriñ Abdou waxaab Diop la ñuy waxtaanal yéen a ngi koy gis ci TikTok bi yéen a ngi koy gis ci mm. Ngoy TV yéen a ngi koy gis feneen ak mm. feneen muy mm. teg ay xam-xam yu leer nañ yo xamne kenn mënu ko dindi tay nak fi ma ñu ñëkke sëriñ bi mooy ci walum sét hmm. waaw ku ñëw ci yow bëgga a seetlu laaj nga laaj ba solo hmm. te muy arwaan dani hmm. waatu bu yo tamit abba bi nit bu di am neega sét moy buntu ba nga mëna jaaré dëgg la te kon do fu di nekk bis bu yalla doole ban joko bu far tenk loxom ak turam ak turu waajur mu jigen wallahi Moussa danaa ko seet ba mu jàpp ni. allahu ku ko xam moo ma ko wax. dëgg la gis nga damay wax ni doomu adama bi. Mhm. lépp lu muy làq ci boppam. mboolem mhm. bañ maa seetlu man bu ma seetee. dañ ko wax danaa lépp laa koy leeral. léeg ak Moussa danaa seetal nit. Mhm. ba gis yoo xam ne dama koy rusé sans wax. dëgg la seet moom. yàlla may na ma ci tawfeex yoo xam ni. doomu du ma seet doomu aadama mukk te gisuma la moom. dëgg la. loolu moom lu ñu yàlla defal la. macha allah kon nag nit ki man mënuma laa ñaanal mukk te seetalu ma ko. ki ko mën a xam nag. Mhm. mooy néew si ñëpp doo xam. doo mhm. bëgg nga seeta rek. Mhm. waaw <laughs> waaw macha allah ñu bari dañuy wax seet ñi naan listixaar listixaar ak seet siñ bi lan moo ci gën a wóor. <laughs> listixaar. mooy da nga koy fanaanoo. fanaanoo. seet moom. ndax léeg nit ki day am soxla mi urgent mhm. bëgg nga seetlu ko fa daar da daaru nga seetlu ko mhm. xaar moom mhm. guddi gi guddi la lay doon guddi bu dee seete léegi mën ngaa woote léegi ma seetala léegi dëgg la loolu moom ñaare listixaar leen nañ waaye seet mm, seet jëm boppam wallahi dama dañ cee mën a seet loo xam ni day mel seet boo jàkkaaroo yow man fii noonu noonu lañ seeta man soo seet jëm boppam day mel ni seetu boo ma jàkkaaroo di la wax carrément li may gis lépp nga nga xam macha allah lekk waaw loolu ma xam ko mm-hmm. waaw waaw mais comme euh, nit ki mën na fanaanoo ñaari nit wala ñetti nit ci listixaar ci guddi wala kenn nit rek la ñu mën a listixaaral naa nit man nag wax dëgg yàlla mm-hmm. kenn laay kenn kenn laa mën a jël par guddi kenn kenn nga mën a jël par kenn laa kenn laa mën a jël par guddi kenn mm-hmm. kenn kenn mënumaa boole ñaar ak ñett déet da yàlla dëgg la bëgg man kenn laa mën a jël dëgg la waaw kenn laa mën a jël kenn waaw par guddi waaw jërëjëf yaaram ndax ñu bari dañ koy laaj naan sëriñ yi dangay dem ci ñoom ñu jëlandoo cinq personnes naan dañ leen di listixaaral guddi gi euh, kon leer na mosuma jël maara mu ne ma mën na listixaaral ñaar wala ñett par guddi kenn nit la ñu mën a listixaaral kenn te ki koy def day tëdd nelaw te mënoo tëdd nelaw ñu lay woon ay programme fukki nit ah. nga nekk doom ah. doomu aadama ginnaaw bala yàlla mayee xam-xam nag d'accord ah, mais nga ko bëgg ko jàpp bu xooyee woola nga koy koy waxaat loolu day xaw a doy waar acca sëñ bi ñu ñëw itam ci wàllum koo xam ne nii dafa tëju bëgg a ubbeeku hmm, hmm. mhm. laaj nga laaj am solo mhm. te muy nit ki mhm. damay wax ni am réew du dox doomu aadama jëm boppam mooy ubbeeku soo xasee ubbeekoo mhm. ay mbiram yëpp yëpp yëpp yëpp ay dox dëgg la ubbeeku nag mhm. yàlla defal na ma ci tawfeex joo xam ne mhm. képp koo xam ne xool naa tama gis ne da umu da nga tëju wallahi am na cangat yoo xam su ma a ko joxee ba nga sangoo ko da nga ubbeeku ubbeeku ba jàpp ni maanaam yow lépp loo waroon am danoo dexeñ lépp jox la sotti ko dëgg la cangat la goo xam ne du ma ko caaxaan mukk nag dëgg la de waaye képp koo xam ne yàlla dogal na defal naa la ko billaahi da nga ubbeeku ubbeeku ba xam ne yàlla may na xam-xam. dëgg nag du ma ko da nga ko caaxaane. déedéet ki nga xam ne xool naa ko ba du nit du nit du doon nitu caaxaan. Mm-hmm. moom la def ndax am na su ñoo xam dañuy dem ba topp seen bakkan. Mm-hmm. ubbeeku ba du amati dara lu leen të. dëgg la loolu loolu dafa mat di bàyyi xel waaye ah. képp koo xam ni loolu gaar na la. Mm-hmm. da nga tëj boo xool ba ba dafa la ubbeeku ay wallaahi a nga sant yàlla waaw. dëgg la macha allah muy lu am solo euh, sëriñ bi maanaam dafa am ay mandarga yoo xamante ni nit ki bu tëjoo day feeñ ci kanamam wala day feeñ ci ay ay ay jëfinam wala lan nit ku tëju ba nga xam ne man mii damaa tëju yan mandarga la mën a xamee que ne moom dafa tëju. Euh, gis nga nit ki. saa su xëyee ngoon. Mhm. Euh, bu xëyee ba ba ngoon jot. Mhm. te gisul dara dara lu koy yokk. Mhm. wallaay na xam daa tëju. dëgg la. nga xam daa tëju. bu duggee si dara. bu duggee di lijjanti. Mhm. mu def la dëgër këcc. Mhm. nga xam daa tëju. dëgg la bu yaakaar dara muy tas. Mhm. nga xam daa tëju. bés bu jotee commencé am ay tolof tolof comme lijjanti mu jafe lool. ak i tolof nga xam daa tëju. dëgg la waaye nag il faut que loolu lépp koy xool ba noppi. doog la xa leeral dëgg dëgg. yow li tax nga tëju. dëgg la amaana nit ki day jëfandikoo gàllaaj goo xam da koy tëj. nit ki de mën naa sarax sarax loo xam sarax sarax boo xam da koy tëj. da nit ki mën naa sango mhm. saabu sam da koy tëj mën naa takk loo xam da koy tëj. Mhm. gis nga nit ki. Mhm. maanaam am ñoom seen mbir sax la am ñoom takk am ñoom naan am ñoom xalawat am ñoom isla saw ñett juróom yi nag. nit ki fu mu mën nekk il faut que benn nag mosuma defal mbiram. waaw dëgg la. waaw. jërëjëf muy lu am solo loo xamante ni wax dëgg fa sëriñ bi yàgg na ko wax. ah kon gaay mu ngi nonu numéro bàyyi non ci écran bi dem ngeen ngeen woté sëriñ bi nak ñu ñëw ci lo ni nga moy sayef ah ngay nga koy faral di wax ne kep ku ci caaxaan bul ma wo muy mbirum nop ak nop ak note nak lan moy seen différence ñaari baat yoy nop ak note lañ nga laj bam solo mhm. muy mbirum hmm lo mom la wax ni la mhm. man de wonte mo ci kenn la kay nopp du ma ko caaxaan mukk moo tax du ma ko waxantu sax te du ma ko kafantu mhm. waaye ki nga xamee ne mhm. am na borom këram mhm. borom këram tëgg ko fa mu a teg wala jigéen gi am borom këram borom këram tegu ko wala jigéen am fa mu ko ku jigéen gi waa ku góor ki am soxnaam soxnaam tegu fa mu ko war a teg wallaahi buñ ko dana sante yalla lol te xamni yalla mayna xam-xam dama wax ne ku caaxaan bul mo te gën kaa gatt ñet fan waaw ñet fan nga résultat leen nañ bismillah waaw waaw mm-hmm. waaw kuy caaxaan bul ko wo ñet fan nga gis resultat ci walu noob kon gaay dem leen fan nga gis resultat mu ngi nonu kan moko ñëmé mm. wax na yëkëti loxom serigne Abdou Wahab job nek ba diwanu Touba serigne bi ñu ñëw itam ci walum kayit ñi nek bitim rew son nañu gaay ñu ngi woote di dañuy ah. déposé bosson duñu mëna gis résultat sëriñ ci ñu ngi lek seen xaaliss ah ay 300000 ay 400000 bo 500000 ñu ngi koy féré fere mënu ñu gis résultat tay képp ku la woon tay ne dafa déposé ay kayit nek bitim rew bosson son mënul am ay kayit naka ngay jëflanté ak mom yaram ah, wa acca mo ngi non dafa melni crédit dafa jeex xaaral ñu joko wat ak mom tuuti wala xaaral ñu woko mo mu eggali li nga xamanteni ni di laaj bi ndax amna solo amna solo amna solo fi ñu toll moy walum wàllum ku nek bitim rew rek soxla ay kayit naka ngay def ba joko ak euh, Serigne Abdou Wahab da melni ni mu ngi mu ngi joko wala aca mu ngi non dal kon ñu xaarandi Serigne bi ñu xaarandi Serigne bi mu ñew ëggali waxtaan bi incha allahu rabbi képp ku nekk bitim réew daal soxla ay kayit ci wér wóor mën nga jokkoo ak sëriñ bi ci numéro téléphone boobu ci écran bi ak mu ngi noonu waa Yaram. sëñ Moussa. waaw bu dee ku ci wàllu kayit. Mhm. yàlla may na ma ci tawfeex. Mhm. joo xamee ni. Mhm. nit ki fu mu mën nekk ak réew mu mën nekk. ba ci ki nekk Sénégal sax bëgg a dem ci réew ma am jafe-jafe kayit mhm. ci kàttan suñu boobu muy may ak mbaaxam mhm. bis bu ma jotee téléphone mhm. li ma koy def ma koy defaree ne juróom-ñaari fan ko romb te gis ay kayitam laa ilaha illallah juróom-ñaari fan juróom-ñaari kayit te yàlla dogal te yàlla dogal mu juróomi téléphone bis bu ma jotee ñaari fan du ma liggéeyal mukk te gisoo kayit incha allah waaw juróom-ñaari fan du ko mën mukk te gisoo say kayit kii nit ñi nag leen di nax lool ci wàllum kayit mm-hmm. ñu yëg seen xaalis joxe mm-hmm. te leen te leen ci war gis duñ gis duñ gis dara dara dara bari na waaye man de ma ma xamal leen mm-hmm. laa tax na doom yi raxmatillah bu leen ja bu naagu mukk ci yërmande yàlla yàlla yërmande lu yaatu la waaye li ma yàlla dafa tam taw man si tax doomu aadama yi ci wàllum kayit kii ko mën a xam mooy kii ma si yëpp doo dama am jafe-jafe kii te bëgg nga ñaanal ma ci dëgg kooku yoon yu ma koy teg. Mhm. du diis de. waaw waaye ci kàttu si moom mi maa ngi baaxam. Mhm. bu ma ko taxawoo dana sant yàlla ci wàllu këyit incha allah. jërëjëf yaaram. waaw incha allah. maax euh, ndax tey sëriñ bi. walum ay dafa laaj sarax yu bari ndax yenn saa da gis koo xam ne dañ koy gënaloo ay sarax bu day découragé sax ci ñaan yi quoi. mu këyit nag. Mhm. nit ki. waaw ay kii de sax mën naa bañ a laaj sax sarax. dëgg la. mën naa bañ a laaj sarax mën naa laaj góor rek rek kurus. Mhm. mën laaj sangu sangu. sangu eh, laaj wird mën laaj wird mën laaj ismila sam waaye lu si mën am mhm. man nit ki ak ak ak lu mu mën doon. Mhm. il faut que a xool ba xam rawxaanam. voilà merci su ma xasee jàpp rawxaanam. wallaahi ay kii itam dana jàpp dana gaaw lool te juróom-ñaar fan da koy suñu taw

suñu borom yëkkati ko mu kawé lool amin ya rabbi fooy mën tool di ko dégg mhm. no nga ñaan di yaakaar gis nit ñi am yàlla mhm. yalla yàlla dëgëral amin barki yàlla yalla yalla japp na la yaakaar kep ku ci wote rek ngir am aajo hmm aajo bo man dem rek hmm yalla nako yalla fajj ci barkeb Sëriñ touba barkeb Cheikh Massamba waaw jërëjëf ya serigne bi kontan nañ bu baax yaaram alhamdulilah ñoo ko bokk wa waaw jërëjëf aca gaay mu ngi noonu kon Serigne Abdou Wahab Diop lañ doon dalal doon waxtaan ak moom ci xam-xam dégg ngeen li mu wax itam wax dëgg fa yàlla numéro baa ngi noonu ci écran bi mën ngeen jokkoo ak moom ngeen woo ko diis ko seeni soxla mu ñaanal leen ñu bay lépp ci loxo yàlla suñu borom ndax yàlla nag mooy nangu ñaan nit ki mën na son ci ñaan lool te yàlla bu newul waaw rek du am kon nañu gëmloo yàlla doyloo yàlla woolu yàlla topp yàlla doog a dem ci ay gaayam nag talal ko loxo mu ñaanal ñu li may faral di wax chaque jour man Moussa Ngoye TV vidéo bu ma def dinaa ko wax dama koy wax sama paase seen TikTok bi télévision bi dama koy wax itam fépp foo xamante nii maa ngi fay def ay émission képp koo xamante nii boole naa la ak ab mara wala nga gis uh, sa numéro ci ab maaraa nga woo ko jox ko sa alal mënatoo ko dégg jëlal sama numéro nga woo ma ma woo ko mu delloo la sa xaalis man doxuma ci ay caaxaan waxuma ci ay caaxaan wóotaluma kenn bës dama xam ka ne ñii may waxal ay boroomi xam-xam lañ te amaana seen xam-xam boobu mën nañoo toog seen biir kenn ndax yor nañu seen liggéey mën nañoo toog seen biir kër euh, di liggéey seen liggéey mais pourquoi ma xam ka ne ñi yor nañu xam-xam ma génn di ko partager ak yéen mbokku inter mbokku internet yi ngeen koy dégg di dem ci ñoom ñu leen di ñaanal seen aada ju faju tey amaana tey mën nga dem ci sëriñ bi sëriñ beneen sëriñ mu fay loola quatre cent mille cinq cent mille nga gis Serigne Abdou Wahab mi nga dem ci moom mu ne la jox ma cinquante mille jox ma cent mille franc mu ñaanal la sa aajo faju man loolu laa ci jublu kon gars yi maa ngi leen jox dox daje ci beneen émission mbokki Sénégal rawatina mbokki bitim réew sëriñ soxoy bu jób di yëngu ci wàllum ñaan yow mi nga xam ne da bëgg muslaay maanaam mucc ci làmmiñ bët ak cet ak seytaane ak rab fexeel ba jokkoog sëriñ soxoy bu jób sa aajo dina fajo incha allah yow mi nga xam ne da nga nekk ba bitim réew bëgg ay kayit loolu mu daal di lay jafe wala yow mi nga xam ne da bëgg bëgg gàllaajitul ba pistolet di mën ci yow daxa wala noot fexeel a jokkoog sëriñ soxoy bu jób yow mi nga xam ne da nga di góor wala ga nekk jigéen mënti bëgg boxam këx wala itam nga bëgg soxna wala ngoro go duggu mu tass wala itam lo yaakaar mu tass fexee la jokkoog sëriñ Souhaïbou Diop bu sobé yàlla yàlla dina baxandi lépp yow mi nga xamni da nga bëgg jaaxu bayra wala muslaay fexee la jokkoog sëriñ Souhaïbou Diop boxam xam-xam bu sel bi yow mi di jigen te am ak problème sa borom kër wala yow mi di gox te am ak problème sa soxna yow mi nga xamni timi da nga bëgg kula sétal pour wax la say mbir wala yow mi nga xamni da nga am xey ndoxum city wala xit wala néew kattan yow mi nga xam ne danga nga di jaaykat bëgg li ngay jaay lool di dox fexele jokkoog sëriñ soxoy bu jóg boxam xam-xam bu sell bi yow mi nga xam ne da nga di marchand ambulant bañ booy jaay kenn xamaas la fexele jokkoog sëriñ soxoy bu jóg mu ni yow mi nekk ba bitim réew daal di bëgg ay kayit wala yow mi bëgg gàllaaju tul gi maanaam takkatul wala note sëriñ bi daf la ci defal ay ñaan bëgg gis too ko fay sa xaalis xanaa lii neex na yow mi nga xam ne yaa di jigéen te am ak problème sa borom kër wala yow mi góor te am ak sa soxna ji góor te jëloon sa alal daal di koy investir ci benn ndaw ngir bëgg ko def soxna gën dem ba ci digg ba seeni diggante daal di am ay jafe-jafe fexee la jokkoog sëriñ Souhaïbou Diop yow mi nga xam ne tamit da ngay wër liggéey te mënoo am liggéey da ngay fexe jokkoog sëriñ Souhaïbou Diop mu defal la ci ay ñaan bu soobee suñu boxam yàlla dina jàppandi lépp sëriñ Souhaïbou Diop boo xam xam bu sell bi adresse Touba la numéro téléphone 75 749 19 86 jërëjëf sëriñ Souhaïbou Diop gis nañu bu baax ni ngay jàppale jaamu yàlla yi ci sa xam bu sell bi yal na yàlla fay aw yiw